dañ lay foqati dañuy foqati suñu nguur ci yow waaw moo tax yéen gars yi mooy li ma leen di expliquer rek képp kuy toog di xeex ci Macky Sall da nga war a demee xel parce que boo demeewul xel la cuune ngay doon parce que seen ay jëfin moo salte te dañoo mën a fen dañoo mën a fen parce que boo seetloo nguur goo xamante ne day fen lu mu waxoon démb du ko def xam nga lu mu la wax mooy loolu suñu problème carte d'identité ñu ngi nii jël suñu 52 milliards dugal ko ci carte d'identité ba léegi nii benn sénégalais mënul loolu yëpp da ngeen koy fàtte ndànk-ndànk sénégalais yi bu leen di fàtte loolu gis nga booy dem di guerre sa arme yëpp da nga koy yóbbaale yooyu yëpp détail la yoo xamante ni lu war a mën a tax la ñëpp bàyyi ma Sall tey ñi ko fi toogal nii ak ñoo ak moom ñoo yem fen kese la ñuy def fen kese kese kenn du ci wax dëgg fen rek lañuy def. fen rek lañuy ñuy def daray dëgg waxuñu ko gars yi maa ngi fi de may lay ma rek ma am lu ma rek la rek parce que affaire yi ma war a wane yëpp il faut ñu wax ko ma def ko nii xaaral ma ñëw gars gars yi dañu ñëw dafa ko la saaga xaw ko ah waaye yow gars yi ñooy tontu yooyu. saagaal <laughs> yi saaga man joteeku ma ak yéen dara su nekkee li may wax seen président moo leen metti ngeen dem wax mu liggéeyi. non bu ñu tasee wala bu ngeen taje woon ak man ngeen saaga ma. fexe leen nag ba indi laa seen ay mbokk ndax yàlla dogal ni tuutiwu te yow mu maa noq. fexe leen di indi seen ay mbokk nag loolu laa leen di wax de parce que ñaar nit nokku ñu ma de ngeen góorgóorlu ci rek jaajëf te waaw très bien waaw gars mooy comme ni ma doon waxee sànq rek maa leen doon wax sànq di leen expliquer ci wàllu ci wàllu Euh, kii euh, ci wàllu ci ci wàllu kii nu mu tuddati euh, ci wàllu ci wàllu kii waa enseignant yi xam nga enseignant yi ñoom dañoo yor seen ay njaboot war leen di fay ay war leen yor comme ni ñu leen waree yor tey bul am sa problème sa problème bopp munoo yor sa réew. bëgg a këpp lépp enseignant yi léegi dem nga di leen ñaan ay njekk saa su ne nga leen di ñaan ñu ñëw taxaw di la taxaw enseignant yi weñaar nañ seen loxo du benn du ñaar du ñett yaa ngi may dégg te enseignant yi di ay kilifa di ay borom kër yàlla dogal ñoom ci seen sa ay salaire seen ay ñaq ci seen ay ñaq dañoo dem am jom jàng ji ba ñëw di jàngalaate ci seen ñaq lañ yaakaar pour mën a tekki yor tere seen njaboot sawaay ñooñu boo leen mënul dimbali ñooñu boo leen mënul dimbali boo demee ba mënutoo leen fay boo demee ba mënutoo leen fay nga bàyyi leen wala nga jox leen cër bi ñu moom léegi dem nga ba joxatoo leen cër bi nga moom léegi da nga dem di leen menacer tey nag dafa am rek ay ay ay wàllu ay ci ay points rek yoo xamante ni dañ ciy wax ci loo xamante ni wàllu nit ak wàllu respect ak wàllu jox cër doomu aadama xam nga loo xamante ni problème mu enseignants yi instant yi nii yi wax nañ leen lu leer Macky Sall menacé na leen nee na leen fi mu toll nii bu ñu jàngalewul léegi dina commencé di jël ci seen salaire ndeysaan ñooñu dimbaleetoo leen ndax salaire amul Sénégal salaire salaire amul Sénégal yéen ñii ñépp li may wax yéen ma ko gën a xam salaire amul Sénégal parce que tey salaire mooy nga am dara maanaam faj ci sa ay soxla faj ci sa soxla njaboot xool koo mun a dimbali sa sa moromu jullit ci mbedd bi nga jàppale ko. yéen sénégalais yi yéen yéen a gën a xam senegal boo nekkul ministre wala député wala nga nekk ci nguur gi teraanga doo ko am wala balaa nga ko am di nga xaw a dee da gis nit liggéey ba weer bi dee jot mu toog dem génn sax di lebi ci wala nit yaakaar ci moom ndax gis na ko mu yeewu di xëy mu ñëw di ko leb ndax soxla rek moo tax nit di liggéey soxla rek lay faj. ndax li ñuy wax rek alal fajul dee gàcce lay faj kon ku ci nekk sa bàcc sa gàcce ngay bañ a gis moo tax ngay dem di liggéey tey boo demee ñu mel noonu tey yaakaar ci seen salaire pour pour fay pour mën a toppatoo seen njaboot jàppale too leen nga dem di waññaar seen loxo léegi naan déedéet da leen di imposer dara xam nga loolu mooy fen ak ñàkk jom ak manque de respect ak ñàkk jox nit wet ak orma bi mu moom. mooy li ma leen di wax chaque jour rek ñoom noonu la demee dañoo arrogant ñàkk teggin amuñu benn respect ci benn sëriñ amuñu benn respect ci sénégalais yi parce que seen comportement noonu la demee saa su ne boo xoolee sax suñu président buy wax day fuural tuñ di jaay nit ñi ngaam yu rëy te ngaamam yooyu tey bu yàlla doxalee ba mu fees ñoom ñëpp xam nañ ni moom ñoom seen waa kër nganda lañ baaxoo ñoom xam nañ moom dëmm yi bu ñu leen jàppoon lekk si ñoom tuuti rek barke Serigne Touba dinañ toj wala at lu topp doo dégg benn sénégalais bu dee ci wàllu ndëm loolu ñëpp xam nañ ko mais li leen yor di leen dundal sénégalais yi ñoo ko yor di leen ko defaral saa su ne loolu ñëpp xam nañ ko sénégalais yi ñoo leen yor di leen yor saa su ne parce que suñu sa suñu ay alal suñu ressource di ngeen di jël di ci dund ñun ñoo leen teg place bi ngeen nekk kon yéen mënoo leen ñu jaaxal kon sénégalais yi bët boobu laa bëgg ngeen di xool ñooñu bañ di leen xool benn bët bu rëy xam ne yéen a leen di fay ñu yoroon leen seen réew bu ñu demee ba mënatuñ ko tamit jàppale nañ dañ leen di jàlloo seen réew rek mënuñu loolu nag léegi dañuy dem léegi di xeex ak yi di leen dóor léegi di leen dàq ji ba ci seen biir kër yi élèves ya génn fee di xeex ñu leen di sàlli ay lacrymogène ba toj ci bët doomu jàmbur. léegi pour walla moom àdduna moom yàlla dafa aay nit di nga dund daal di nga dund dara ba dépassé ko yaakaar ne yow la nga lebale woon démb du wax bu fayaat tey. même situation boobu noonu ñu tolloon démb Macky Sall situation bi mu toll nii même situation. même même situation boobu noonu Ablaye Wade dundoon na ko fi ay jamono. mais pour wan la doomu aadama yi man fi ma leen di woo chaque jour woowu ma leen pour may faral kenn wala kii wala kaa mais dama leen di yee rek pour ngeen xool nit boo bëggee sa réew comportement yi nga war a am. comportement yi nga war a am. parce que nitu nitu réew président saa bu rek pour réewam rek bëgg ko moo tax mais du ñàkk jom comprendre ngeen du du ñàkk jom wala ñàkk fayda du jaay doole mais président dafa war a yërëm réewam yéen leer la leen ni gisoo leen benn yërmande bu jugee ci Macky Sall amul yërmande si ñun fen rek lay def moom ak ku mu munti àndal. dañuy ruumandaat rek di wan ni dañoo fen te li ñuy wane yëpp man Sénégal li ma gën a naqadi mooy yéen da ngeen fonk kuy wanewu da ngeen fonk kuy génnee xaalis di ko tasaare ñu naan kii daa baax te la ma te gën a naqari la plupart sénégalais yi koy def yëpp alal googu yëpp ñuy jël moomuñu ko. bàyyi leen ñuy fenante ñu lay ñu lay nax di la wan fen yi nii ba pare di la nax nga koy gis ba pare nga bëgg nangu man du ma toog di liggéey par jour douze heures de temps. génn jël xale xaalis bi di ko wasaaree noonu barke sëriñ tubaa duma ko def yéen tamit bu amee soo xamante ni yéen a ngi ko ci def jàpp leen ni yéen li ngeen di def defu nit. wala nit woo la la ay détails yu ñàkk fay da nga jox ko mu koy caaxaane kon loolu noonu ngeen di def da ngeen ci war a bàyyi xel nañ waxante dëgg. nit alal gu moomul rek la jël di ko pasar pasaree wala nam ko amee lewul mais bu lawee doo nangoo daj coono yooyu barki borom tubaa doo ko sañ a def. doo jël sa alal di ko pasar pasaree noonu kon nit ki jël alalam ñàkk ko mu daj ci ay coono yu metti du ko fooyee loolu ñuy jël di ko maye ngeen di yeewu tey gis Marème Sall jël alal dugg ci benn koñ man te man tuuti bët gi sénégalais yi tuuti bët moo gën a naqadi yor sa ay sagaru mat laa ñu naan ndeysaan dafa bëri yërmande yéen loolu mooy yërmande loolu mooy yërmande ña muy fekk di leen maye di mat laa am nañ fu ñu tëdd am nañ kër ñu fekk leen ci biir kër di leen jox mat laa hôpital bii amul sax ay garab yu yu nit ñi fajoo te yéen yéen a ngi déglu problème yooyu chaque jour ñu leen di wax kii dafa ñëw hôpital ñu koy rangloo kii ñu ngi koy laaj benn 2000 francs mu door a dagg ticket ñu door ko laal réalité yooyu ngeen yaakaar nañu ñun yi war nañ ci mën a dee ñun nañ waxante dëgg gars yi réalité yooyu ngeen yaakaar ne loolu yi war nañ ci doon toll ba léegi nii te ñun ñi tukki yëpp dama xamul ñaata immigré xam nga immigré yu dugal plus de ñaata plus de sept milliards chaque an ñu koy dugal biir Sénégal immigré yi di ko dugal kon xam nga niñ ko ñun duñu nous sommes nombreux nous sommes nombreux ñun sénégalais yi mais nañ nangu benn affaire nañ nangu wax sénégalais yi lii réalité bi dëgg bi parce que boo nekkee Sénégal duñ la wax lii dëgg dañ la yaakaar na nit dafa war a am teraanga ci sàcc ci rambaaj ci fen ak nekk politicien moo gën a yomb pour am teraanga. chaque jour bu weeru koor jotee ngeen di toj tali toju ko ñi di woor di génne tàndarma yi di ko saraxe fu nekk di wane ni dañoo gëm yàlla ñun ñu koy wane fu ne te suñu gëm yàlla am na yu bari yi ngay jàppee détail di ko bàyyi si ginnaaw barki Serigne Touba Mbacke nga bañoon di woor di def moo gën nañ bañ di fen di naxante suñu biir di wanante yoo xamante ni du dëgg te lu dul dëgg bii nii ci la bokk amul yërmande ci sénégalais doomu sénégalais yi amuñu si yërmande dañuy fen boo waxee rek ñu naan la ay Marème fay sàll mu def jaagar jaagareem bu forox ñu naan dafa am yërmande sa waay loolu du yërmande ñun jikko yooyu kenn mënatuñu ci nax yooyu nañ ko moytu bu ñu nangu ñu ñuy naxati ci yooyu yooyu amul xorom amul sens ki am yërmande ci réewam mooy ki nga xamante ni mu ngi xool li problème mu réew mi mu ciy daj ay coono yu metti nit ki ci biir réewam sax mu génn président génn tey sol ay sagar yoo xamante ni tekkiwul dara ànd ak sénégalais yi di raxas mbedd mi. wala ànd ak sénégalais yi di for salte yi ci mbedd mi dafa bokk ci bëgg sa réew nit ki ñàkk na du am dërëm pepp du ko am di jëriñ réewam ñëpp di xam ne kii daa bëgg réewam mais kii ñi wax naan ay dafa bëgg suñu réew bëggul suñu réew day fen sunu président bi bëggul suñu réew loolu laa bëgg gars ngeen bàyyi ci xel démb enseignants yi amoon nañu problème ak Ablaye Wade dégg leen wax gor bu mu fi wax dañ déglu Ablaye Wade rek sa waay ñu déglu Ablaye Wade ak moom ñu déglu ko. donc moi je veux tout faire pour l'enseignement c'est mon pari parce que je sais que c'est ça l'avenir comme je l'ai dit si j'ai décidé aujourd'hui de ramener. salaamaaleykum tonton na nga def ça va. bien. ni les Français ni les Américains ni personne. ni les Africains, parce qu'aucun d'entre eux, ils sont à 13%. Alors, ah j'aurais pu faire ça, les mais je vous les donne. Maman, yaa ngi am jàmm ça va bien jaajëf waay maa ngi nii. pour former les jeunes. si dafa dem dafa dem chacun touche l'argent et c'est une possibilité c'est une option à la limite si tous les syndicats me disaient ça je ne dis pas que je le ferais. mais au moins, je reconsidérerai ma politique de l'éducation. Si tous vous me dites, Monsieur le Président, c'est trop, 40%, ramenez le budget à, euh, le budget à à 30%, le reste, donnez-nous en salaire, mais prenez votre responsabilité le dire aux Sénégalais. Je le ferai. Je le ferai. Mais, euh, la mort dans l'âme. je le ferai, mais la dans l'âme. Alors, euh, je pense que euh, moi, j'ai, je sais pas, j'ai, je, je trouve que vous n'avez pas été juste à mon égard. Jamais. Ils n'ont été juste à ton égard. Jamais. Parce que même, même. toroxal bi ñu la toroxal rek moo la dellu si ñoom. qu'on ne puisse pas vous payer. Vous devez vous dire, au fond, il a tellement fait pour l'augmentation des cases. pour mettre les, les, élèves dans de bonnes conditions, pour, avec les ordinateurs et tout. Il a tellement fait que on lui pardonne cette insuffisance. Vous ne le pardonnez Ni règle du africain. Des insuffisances à cause de ce que je fais de l'autre côté. Si mmh. je ne le faisais pas, vous pourrez dire, mais il ne fait rien pour l'éducation, donc nous sommes exigeants. Ah. Mais vous arrivez, vous ignorez tout ce qu'on a fait, comme si ça n'avait jamais existé. Ah. Ignorez le Des revendications qui, à la limite, sont impossibles. Mmh. rien que pour pouvoir faire la grève prendre les les enfants en otage. waaw ah mais vous savez ça je ne peux pas l'accepter. jamais je ne peux pas l'accepter et je ne l'accepterai pas. Mm -hmm. il faut que cela soit clair. Mm -hmm. parce que moi je je pense que euh, avec certains syndicats heureusement euh, je me félicite des syndicats qui après avoir reconsidéré la situation ont accepté de corriger les erreurs. Mm -hmm. n'est-ce pas? et, et, de faire en sorte que ce, le, bac se passe dans des conditions normales. J'ai suivi avec le, ministre de l'Éducation, n'est-ce pas, tous les problèmes des corrections. Je trouve que ce bac, il a, sa valeur, euh, valeur comme n'importe quel bac, parce que corrigé et supervisé par des professeurs d'université. Il vous n'avez pas intérêt dévaloriser un diplôme donné par le Sénégal. Mmh. On n'a pas intérêt. Mmh. Je crois qu'à partir du moment où la donnée s'est garantie, il faut au moins qu'on ne, ne sorte pas d'ici en dévalorisant le baccalauréat. Ce n'est pas parce que vous n'avez pas, vous n'avez pas participé aux épreuves. Parce que ça, c'est, c'est un problème de, de du, du, du c'est, c'est un problème du peuple. Alors, je, je voulais dire donc euh, j'ai écouté toutes les interventions et j'étais particulièrement sensible à celle de M. Fall quand il parle d'exclusion, parce que la démocratie, mais on nous a donné les, les, les explications. Vous étiez dans, dans une euh, intersyndicale, qui, vous avez signé, et puis après vous êtes sorti. Bon, il y a eu des, des problèmes pour vous intégrer, enfin, c'est les explications. Mais je voudrais simplement dire et rappeler que vous discutez avec tous les syndicats, qu'ils soient dans une inter, intersyndicale ou qu'ils soient individuels, vous devez les admettre. Il n'y a pas de, différence. C'est bien. Quand vous m'avez posé la question, monsieur non, le président, non, non, non, non, Let me do it. I'm not ready. Je discute avec l'ensemble des syndicats. Je vous ai dit, c'est bien d'essayer de discuter euh, euh, avec l'ensemble des syndicats, parce que les problèmes étant les mêmes, euh, donc c'est très bien. Mais pas d'exclusion d'un syndicat, parce qu'il n'appartient pas, n'est-ce pas, à une, euh, à une intersyndicale. Tous ces préavis sur un an, etc., ignorant totalement les possibilités du budget, Vous voulez nous prendre en otage, prendre en otage les élèves. marchera pas. Je vous assure, Wallahi, <laughs> ne marchera pas. Hmm. Je suis décidé à défendre les enfants, je suis décidé à, les protéger. Hmm. a fait deux années blanches. Hmm. Ça ne pas ébranlé. Moi, j'en suis pas encore, donc j'ai une marge devant moi. Non, je vous le dis franchement. C'est les enfants qui vont être sacrifiés. Moi, le régime que j'ai là, personne ne peut le déstabiliser. Personne. Il y a l'arrêt. Sinon, hmm. Seulement, ce n'est pas la peine de nous engager dans une voie qui va conduire, n'est-ce pas, à euh, détériorer la situation et dont les seules victimes seront les enfants. Laissons les enfants, moi ce que je vous demande, laissons les enfants de côté menons le combat syndical. Laissez les enfants de côté. Enseigner, corriger les épreuves, laisser les enfants. Maintenant, si vous voulez aller faire des grèves, aller dans la rue, marcher, je vous laisse marcher, je vous reste des Je ne vous empêcherai jamais d'exercer un droit. Moi, ce que je déplore, vraiment, un de l'époque coloniale. kii barki Serigne Touba Macky Sall yow lutte syndicale. quest contre qui Non, franchement, moi je ne comprends pas du tout ce vocabulaire aujourd'hui. Vous ne luttez contre personne, vous ne pouvez pas lutter contre moi. Moi c'est vous, vous c'est moi. La lutte syndicale, le patronat, les wow, c'est encore les patrons, ils se dépendront. Mm, mm. c'est votre État. C'est votre État. C'est vous. Mm-hmm. L'État, c'est le Sénégal. C'est vos enfants, c'est votre mm-hmm. femme, c'est -hmm. vos mm-hmm. parents. la lutte ou des revendications comme ça. Hmm? Donc, ce que je souhaite, c'est vraiment, et c'est de mon devoir, de vous demander, à certains d'entre vous tout au moins, de changer un peu de mentalité. Hmm. Et de gérer avec nous ce problème. Nous, on est prêt à tout moment à vous ouvrir les colonnes du ministère des Finances. Pour que vous voyez ce qui est possible et qui n'est pas parmi vous, vous avez des financiers, des gens qui... attention, vous, vous pourrez peut-être prendre ça ici et nous donner cette sanction. Mais quand vous voyez tous les, les, les, les coefficients, n'est-ce pas, de, de, de Hello, Aisha, how are you? You doing okay? How's your day? 45, good. 40, good to see you. 65%. Yeah. Vous avez la part du lion. Dame, dame, dame. waaw très bien gis nga sama gars yi rek mooy li ma doon wax sànq rek gis nga fii la fii la ab Ablaye Wade gënee fi mu ko gënee bari na fi mu nekkee du moromam sax dafa bari bokkuñu sax bokkuñu sax ay affaires yoo xam ne dañ koy wax pour di xoolal toll di amul fii tollale loolu y'a pas ay di wax Ablaye Wade wala Macky Sall waxuñu loolu mais pour wan la rek naw wekk sa réew wàccee sa bopp wàccee sa bopp di di dund lu population bi di dund nun loolu la ñuy wax loolu la ñuy jooy ba pare di ko dund ak ñoom quoi mais toog ci sa siège di fen rek ñun waxuñu loolu xam nga moo tax moom bi mu tollee foofu enseignant yi mu Ablaye Wade lii la wax dégg ngeen loolu biñ tollee ci enseignant yi Ablaye Wade lii la wax léegi na gaa yi comme xam nga moom tungu ne du teew ñuy nataal te mooy li may wax rek àdduna moom yàlla day àtte ki nga xamante ni moom dafa ànd ak Macky lii la wax bi ñu amee problème ak enseignant yi. aussi ci Macky laa bokk moom laa gëm moom laay jàppale Boun Abdallah Dionne maa ngi ci ginnaawam tey maa ngi ci ginnaawam ëllëg gouvernement bi même chose waaye nag di fi Macky Sall toogee ba léegi nguuru Macky Sall dërëm jokkuwul si jàngalekat yi loolu du yoon Ablaye moom ak moom Macky Sall laa àndoon ak moom di xeex fajar di xeex suba chaque année dina am lu yokk ci jàngalekat yi. année nguuru Wade. chaque année dina am lu yokk ci jàngalekat ci xaalis man maa wax payoon. dix mille francs wala quinze mille francs chaque weer chaque at laa wax de bi Macky Sall toogee ba cinq ans ba léegi amul déedéet te président. waaw loolu na gars yi dama lay benn affaire de dama leen ko won rek xam nga yàlla moom day àtte rek yàlla day àtte day àtte saa su nekk mais li ma leen bëgg xamal ci gàttal rek mooy benn affaire lii nii du mbaaxam de gaañ bi li mu wax nii du mbaaxam. xam nga dëmm moom bul sonn boo laalee sëriñ boo warta laal wala nga laal ci njabootu sëriñ boo warta laal da ngay jëfur jëfur la toll rek kenn jëfuroo gëm fu mu toll nii rek mais bokkuñu sax bokkuñu sax Ablaye Wade Macky Sall y a pas photo chaque jour moo ko loolu buñ ko sax xalaat du ci bopp du ci dara comprendre nga du ci ni nga bëggee sa réew du ci dara ñun ndeysaan dañoo indi suñu noonu réew mu yor suñu réew premier noonu Sénégal mooy Macky Sall Macky Sall yow yaay noon bi gën a yéen ci Sénégal barke Serigne Touba Mbacke yéen sénégalais yi li ma leen di wax nii dafa nekk loo xamante ni lu wér la du ay affaire yoo xamante ni dañ koy dem di ko sasol nit wala dara ñun Macky Sall bu dul dara suñu nawle lañ ko jàppee ay affaire connerie naan président duñ ko wax lii duñ ko wax laa président de merde surtout ñun am na yoo xamante ni duñ ci sonn jéemuñu ko sax suñu gëm-gëm la ñuy waxee Macky Sall nawle lañ ko def dafay ñàkk di yor njabootam ñun ñuy ñàkk di yor moom day sàcc yor njabootam ñun ñuy ñàkk njaboot fii ay yambar waxuñu fi ay père de famille ñoo fiy wax ñoo xamante ni dañu am ay njaboot di waxal Sénégal dépassé nañ di ko fenal te liñ ñu liñ ko bëgg a xamal Macky Sall mu xam ko ci boppam mooy benn affaire du dof wala mu ñàkk fayda ba pare bëgg ñàkkal fayda Sénégal looloo ñu fi toogal te sénégalais yi bu ngeen amee seen ñàkk fayda ak tuuti bët gu tol ni di gis naan da ngeen am président woo baay ba du ngeen wax sawaay am na sénégalais yoo xamante ni xoolal ay doomu sénégalais lañ gis nga jom di nekk ci deretu sénégalais ak fulla di nekk ci deretu sénégalais ak bañkat bi nekk ci sénégalais barke Serigne Touba ba ba ñuy dee dañ koy wax. ñu doonoo faale nday Macky Sall xam nga tey manque de respect yu toll nii bu ko sa réew di la ko def. parce que doomu adama sa doom sax boo ko doon forcé tey di ko dugal ci biir néeg boo xoolul li ngay def boo moytul di nga gaañ sa bopp ñun ay magum jëmm Sénégal ni mu toll ak daraja bi mu am ñu ngi ñuy tuddee réew mu ñàkk de mais suñu tur fooy dëgg réew yi am ya rek dégg ko fa. loolu da ngeen yaakaar ne genre con président yu mel ni Macky Sall yi ñoo tax mu egg fa parce que ay borom bopp ko yoroon ay homme d'état mais tey ngeen foog tey ñun suñu gouvernement bi lii gouvernement wu lan la. gouvernement non mais bassesse bi ñuy teg sénégalais yi munoo leen ko xam sax ñun dañu respecté jigéen ñun dañu respecté jigéen ñun dañu respecté jigéen respecté suñu ay yaay ñun dañu respecté jigéen respecté suñu ay yaay ngeen bañ rek bu gaayam bi waxee benn affaire génne ko fii rek ngeen naan ñii dañoo réew fonk ñu seen ay parents yi wala dara ngeen bañ di fen bañ di yàq der mais am na sama benn mag bi ma wax Macky Sall da lay pousse ba nga sës ñun pousse gooñu ba ñu sës ndax duñ la xaar nga ñuy pousse ba ñu sës balaa boobu li nga yor di ko lekk yow ak sa ay mbokk ba mu buñ te amoo ci benn kersa ba Sénégal yëpp teg ko ci seen bët ba Sénégal yëpp teg ci seen bët te kenn du ko wax dangeen bëgg di dundee alalu sénégalais yi di dawal ay te ay oto yi ngeen di sàcc mais ñun xoolee wuñ leen bëtu am am kat ngeen yéen ñun ñu ngeen tëj ci biir kaso yi ñun bët boobu lañ leen di xoolee yéen da ngeen nekk ci biti biir. yéen da ngeen nekk ci biti yéen da ngeen nekk ci ñii nekk ci biir te li ma ci naqadi mooy yéen di leen tuddee nit ñu bon ak sàcc yi yéen sàcc yu mag yi yéen yéen leen fa yóbbu mooy yow Macky Sall ak sa waa njaboot. yéen a dàq sàcc ñëpp di yor lu kenn dul yor ci biir réew réew moo xamante ne ñu ngi xiif di mar ñu toog nga ne réew mi kenn du wax te yéen leen lu tax réew mi di wax bu nit di wax ak yéen la muy saagaa di xuloo di aalu ci kaw rek ngeen di déglu ngir yàlla ak yonent bi da leen déglu waa ji li mu leen bëgg a wax. di sàcc di yor lu kenn dul yor di sol lu kenn dul sol nit ki toog di xiif di mar sa wet loolu wax la bopp koy dégg. bopp moo koy dégg nit wax leen ko fi ngeen jëm ko taxe dof di ko taxe ku xamul dara amul respect ci nit fekk na yéen a xamul seen bopp yéen ñi muy waxal yéen a xamul seen bopp mais kooku nekk bañkat bi mu nekk bañkat ba mu jaral ko di dugg kaso te yéen xam ngeen ni ci kaw doole rek ngeen ko dugalee kaso ndeysaan da ko fi wax di ko fi bàyyi sénégalais yi di naan waa ji dafa dof ay boonam lay tox du déglu ndeysaan fekk dëgg rek lay wax sama gars yi ñu dégluwaat bi. ngi Sénégal yor ay milliards dëkk ci biir palais bi di lekk sénégalais yi chaque jour te waxu leen ko barki sëñ Fallou maa ko waat man Assane Diouf mu taalibe sëñ Fallou fëgg ko sama dënn billaahi wallaahi wa xam nga luy dëmm mooy lekk alalu askan wi loolu la dëmm di tekki. déglu leen lim leen di wax dëmb weesuwul loolu. moom ngeen ko jiiñ ndax moo ñàkk. amuñu yére yu ñu sol tabaski wala bu màggal jotee ñoom mënuñoo dem wala heure boo leen rombee ñoom ñoo lay xool boo yoree lu dul jeex di ma romb sama buntu kër chaque jour sama waaye sama bët yi day xulleeku. bañ a xulleeku may xulli santa yi. bët yi bu ma la ko dee xool chaque jour looy yaakaar. bi nit ñi di yaakaar Sénégal kii ndax du dañ koy tooñ waaye kii ndax kii kii moom bëtam yi may xool ñeme ma ko dara xoolal bët yi may xool bu ñuy lekk sax léegi dañuy nëbbatu lekk sax di ñuy nëbbatu léegi di wax naan bët yi ragalal yàlla. ragalal yàlla moo gën. da ngeen a tam yàlla ji sax da ngeen koo tam dëmm. waaw parce que bu ngeen lekk yàllaa ngi leen tiim di leen xool. ba pare di fenal yàlla guddeeg bëccëg loo wax rek bàyyi ci loxo yàlla. sama gars yi niñ leen déglu mooy li ma leen di expliquer rek bàyyi leen di déglu nit ki ci ay naan ay affaire de bu dee saaga yéen ñi leen jiite ñoo ñëkk a fii fi daggalante seen ay ndey Moustapha Moustapha Cissé Lo fii la toog daggal ndey Macky Sall ci face ci YouTube bi ñëpp nga koy dégg. parce que Macky Sall président la moo tax moom Macky Sall moom war na saaga moom ak ay mbokkam war nañ saaga loolu mooy ban image loolu mooy ban wax loolu mooy ban atte ñoom ngeen yaakaar ñun sénégalais ñun dañuy toog rek di noppee loolu ñun. sénégalais yi man yéen gentleman yi laay wax sénégalais yi góor yàlla yi laa xam sénégalais yi nga xamante ni tey seeni ay maam bu nu woon du nu yooyu laay waxal. góor yàlla yi laay waxal man góor yàlla sénégalais yi laay waxal man waxuma yambar yi bu dee sénégalais yii nii rek yii nekk senegal nii rek tey bu leen fi jigéen ñi fekkoon man maa la ko wax tey bu fi jigéen bu ñu fekkoon tey fii jigéen ñi bu ñu génnee jiite leen. parce que jigéenu Sénégal gaynde la jigéenu Sénégal gaynde la sa waay barki Serigne Touba Mbacke jigéenu Sénégal du lu yomb de bu leen kenn yombalal ba ngeen yaakaar ne affaire dafa yomb noonu yéen ay jàmbaar ngeen ñun jigéen Sénégal dañ ko fonk barki Serigne Touba Mbacke yéen ay jàmbaar ngeen yéen du ngeen ay yambar du ngeen ay cuune jigéenu Sénégal yéen ay jàmbaar ngeen te ñun fii ñu toll nii di dénoncer ay wax li ñu naqadi yëpp ñu koy wax sunu réew. sunu nguur wan ñu léegi man sama li ma bëgg di def dama leen koy def di leen ko forcer par la force def lépp fang daaj te ko di ko doxal nu mu ko neexee di ko doxal nu mu ko neexee mooy lan dem nañ ba léegi yow da ngay jël léegi ñi nga bëgg léegi ñu lay signaler yow pour ne la ci mbedd mi ngay dem di jox nit ñi ay xaalis. mooy li may wax rek sama gars yi jigéen Sénégal sa waay góor gu xul góor gu yambar gu xulee ñu romb la fa dañuy jaar sa kaw dem sa yoon dem seen yoon ñoom ay gaynde lañ jigéen senegal ay gaynde lañ xolaatal lii. xoolal seen arrogance ak seen ñàkk jom duñu ruus ni seen njiit mel rek lañu mel. gëmal sa réew. Feuz Galsen lii da wax dañoo rafle ay góor Sénégal dañoo rafle ay góor da ngeen di bañ ku leen wax loolu mais looloo am xool ko da wax. waaw waaw. waay barki Serigne Touba. waaw waaw. Sénégalais gëm leen seen bopp. dëgg la wax de sa waay fii gëm sa bopp moo tax ku nekk tekki ku am am mais ñàkk jom ñàkk jom mooy tax sawaay waay man la ko wax fen doo fa dem barki Serigne Touba boo ñàkkee jom rek ñàkk nga jom c'est fini. billaahi boo ñàkkee jom ñàkk nga jom sa fini kenn muntu si dara boo buggee lu yomb ñàkk jom bul son doo dem fenn man maa la ko wax dara doo ko am parce que danga nga ñàkk jom jàmbaar mooy am yenn yi ah. góor gu am fulla mooy am yenn yi mais góor gu ñàkk jom du am yenn yi jigéen ñi gel yi li ñu leen di wax yéen yëpp yéen la waroon génn ci mbedd mi xool nit ku yor carte d'identité di ko jaay wala bokk Macky Sall di def yenn yi baay barki Serigne Touba Mbacke gis ngeen yéen ah yéen du ngeen ay gor sax du ngeen ay gor sax parce que benn junne bu ñu lay jox hmm? benn weccat bi ñu leen di jox ay trois mille francs yooyu diw yooyu dafa ñaaw sax ci ay góor yàlla benn 3000 francs mille francs lañ lay wax naan la xam nga sa waay naan la ay dëndal ñu dëndal ñu ticket wala defaral ñu kiyal ñu lii dafa ñaaw ay signal yëfu ñàkk fayda yooyu. ay mille francs signal ma lii signal 3000 francs te loo xam ne loo signé fii àddina di nga ko signé yomal xiyaam góorgóorlu leen ngeen jéem a xool nu ngeen nu ngeen dëgëree ci seen bopp góorgóorlu leen ngeen jéem a xool li mu jaral Assane Diouf mu nekk gor pire toog fii Amérique nekk ci kër yu sedd yi fii lu waaye mën a kàcc kàcc moom nañ waxante dëgg boo nekkee Amérique di liggéey. américain faalewul ku dul ku yor teraangaam booy fay loo ko laaj ci kër àdduna mu jox la ko ngeen xam li Assane du doon rek yor ran ci réewam gaare ko ci biir bundu këram gaare ko ci bundu këram nekk ci fu sedd nekk fu sedd muy nooy nepp ci moom manqué wul dara ñàkkul dara loolu ngeen war a jéem a lijjanti xalaat loolu pour lan ngeen xam ni loo gis lu baax lu nañu sant ko ci ànd rek jàmbaare ko fa sant yambar defu fa dara te Assane Diouf moomu dara yambar dafa doxul ci moom yéen nag bu ngeen yoree seen ay naafiq biir senegal ak seen seytaaneeg mën a fen ak gaaw ci yàq deru nit nit bu toxee bon boppam la toxal boom nit bu naanee sangara boppam la naanal sàngara yàlla tere na leen sax ngeen ko jugé kenn waru ko ci jugé ñun loolu ñor ñoruñu ci Assane Diouf xam nga lu ñu ñor ci Assane Diouf li ngeen di bañ mooy seen góom yi xeeñ di nëb di sax mu leen koy bombal di leen ko rotal di ko génnee ci suuf ñun sénégalais yi ñu koy xam ba mu jaral leen yenn coono yi parce que dafa tolloon ci di yee sénégalais yi. ba ci man mii dama daan toog ne waa sa waay mën daal Sénégal ni ma ko gisee nii gaayen xeex la boo xamante ni du mus sa jeex bul sonal sa bopp da fi nekk fii di fi daj ay coono du la ko mënal dara. mais léegi damay ñàkk sax barke Serigne Touba Mbacke di jéem a xool ay sénégalais yu ma jël regrouper leen ñuy xeex suñu biir koñ di ko defar ba mu rafet ndax ñun xaaruñu Macky sàll pour ñu mën am lenn lu ñuy defaral. ñun fii à partir de fii dañuy góorgóorlu di xool jeunesse bi nu ñu leen mënee recens recensibiliser recensibiliser xool nu ñuy def jàppale leen ñu commencé di jóg di demal seen bopp seen jeunesse bi gëm ni. du nguur gi moo leen war a dimbali ñun tey bu ñu dundee bay sant yàlla dañu am nu ñu nekkaloon tey bu ñu toogee ci lu nooy ba tal di wax di yuuxul waa Sénégal dafa am fu ñu nekkoon foofu lañ bëgg mu jeex senegaal kon yéen yéen ñiy jàppale waa Macky sàll yi yéen yéen ñuy jàppale Macky sàll ngeen bañ a nekk naafiq bañ nekk ay ginaar yi ñuy sànni ay pepp. di ko jox ngeen génn ci mbedd mi di daw di mel ni ay sax yu gis ndawal mel ni ay dëmm yu gis ndawal dem ñu leen di jox ay t ji leen fay ay dix mille ak mille ñàkk jom boobu ngeen war a jéem a génnee seen bopp maire yi saa bu ngeen yeewoo di woo seen doom yi ci wàllu ngor bugg lu baax loolu ngeen di def sax yëgoo leen ko ah ñun de dañ ñëw woo feebe rek benn benn kii kii de mooy mitin sama xarit boobu ñëw na jox ma ñaari junneeg piis léeg-léeg laa yaay sàcc nga bu ko sama yaay defee barki Cheikhul Xadim bu demee jël alalu réew mi pour demal di politigal Macky Sall sàcc nga ku ko def sàcc nga yaay booy bu def loolu sàcc nga alalu Sénégal sàcc nga alal yi ñu war a tax ba tabaxee dispensaire yi tabax ci hôpital yi sàcc nga li nit ñi war a lekk sàcc nga ñi ñu war a dimbali sàcc nga garab yi ñu war a indil waa Sénégal kon moytu leen alalu jàmbur yooyu ngeen di jël yéen sunu yaay yi parce que maire yi rek kay nekk ci taatu meeting yi yor seeni uppukaay ak seen wax yu sew bàyyi leen njëfu jaam yooyu. bu ngeen taxawee ñu leen di taggal seeni maam ngeen di génnee ay junne di maye dee leen déglu li waa di wax. junne bi ngay maye junne bi ngay maye del déglu di taataan li waa ji di wax. saa bu ngeen dégloo di dégg nit di la tagg sa ay turu maam lay jaar sa maam bu doon sàcc du ko wax. sa maam bu doon dund ci alalu politicien alalu politicien yi duñ ko wax. sama bu doon fen pour taxawal réew duñ ko wax sama bu doon jaay doole ci mbedd mi duñ ko wax sénégalais gor la li ñu waree mën a tax xam ni Macky Sall du gor ak ku ko mun ak ku mu mënt di àndal mooy nga wax fi bañ jox la 65 pour cent te amuloo njëriñ réew moomu yow boo doon gor démissionné nga bu yàgg bu deretu góor doon daw sa yaram démissionné nga bu yàgg mais la pa Ablaye Wade di wax rek dëmm da ngeen ko yaakaare yéen kii mais nii la lii mooy jëfu dëmm jëf yii mooy jëfi dëmm yii mooy jëfi ñàkk ngor te yii boo ko nekkee président ci benn réew réew ma boo seetloo xale ya du ñu am jom parce que du ñu ragal ku leen xas du ñu rus ku leen xas ñun sa waaye dañuy rus ku ñu xas de. dañuy rus nu xas mun nga dugg ci internet bi nag fekk ñu fii ñuy wax nag nga naan sénégalais yi naan booy HLM yi lii wala nga naan booy booy booy li léeg léeg léeg laa Facebook laa nekk di wax ñun ñàkk ñu de ñun dëkkuñu fa ñu dëkk police dinu fa dàqe ñu ñuy dàqe ak yàmbaa wala dàqe ñu yeneen ak yeneen <laughs> bu ñu amee fi toog fii di wax sa <laughs> mooy loolu de barke Serigne Touba Mbacke bu ñu Séné bu ñu yàlla indi woon Sénégal ma fekk Sénégal élection wu Macky Sall Macky Sall di élection biir HLM barke xaadimu rusul bu ma ànd ak doomu ya fa nekk Macky Sall du fa gañe pepp parce que ñun dañoo nekk ay doomu HLM 5 yàgg nekk ay bañkat ñun du ñu ñàkk jom du ñu ñàkk jom te booy HLM yaa ngi foofu di ma dégg maa ngi nii ñu di live di def ay vidéo di ko fi bàyyi ñu ngi may dégg bu baax. ku ñàkk jom waxul ku ñàkk fayda waxul man dama juddoo HLM 5 yaroo fa màggee fa ba génn ñëw fii teg ci nag xam sama bopp ndax xam sa bopp weesuwul nga bañ di dundee faalewu ma kenn boo faalewul ni doo am jom moo tax Macky sal ak mu àndal ñàkk jom parce que bu ngeen ko seetloo li muy def yëpp mooy faalewu ma kenn ah oui da ngay faale say noon da ngay faale kii jëmale wax bu ñaaw di la ko sànni da nga leen di faale boo amee looy bañ da ngay faale mais boo ñàkkee jom doo faale kenn ñun nag dañu am lu ñuy bañ am lu ñuy bañ mu jaar suñu der yi am bañ lu yàq sunu réew dañuy am loolu yëpp dañ koy bañ moo tax xam nga. mooy li may expliqué rek xam nga ñu bàyyi dara mu sedd close the door ñu bàyyi dara mu sedd xam nga maa ngi ñëw maa ngi ñëw lekk xam nga affaire bi mooy loolu quoi oh moo tax moo ñun ñun ñun pour ñun dañoo placé dañoo bien placé pour wax ñun pour ñun parce que ñun ñu ay affaire de nit ki dafa war a am dayoo wala am ñu muy toll moo tax ñun duñu wax complexe weesuwul loolu dëkk bii moo gën a naat dëkk boo gis yi gën a mag ci àdduna bi seeni doomu réew du ñu am pepp seen biir poos ba pare taxaw di kaasal seen réew kon ñun complexe boobu doxewul fii exceewul fii ñun complexe bu sénégalais yi di am di benn moment complexe boobu laa bëgg sénégalais yi tàmbali ci góorgóorlu dem ko dindi ci seen bopp tuuti da ngeen xam ne kii nekkal ñu fii nekkalu fi dara lu baax barke Serigne Touba mënuluñu lenn léegi nag am na beneen point gars yi bu may egg bu may eggaliwaat comme jugee nañ ci boor boobu léegi dafa am lu xew lu xew lu bees tàq dafa am lu bees tàq lu xew suñu réew temps yi te loolu moom sunu nitu sunu nitu sunu sunu sunu sunu sunu nitu kii yi sunu nitu sunu kii yi Sunu. I see something in there. Mama, do what a Come. Just sit down over sunu nitu diine yi dañoo wax ba dee boo seetloo te gars yi kenn bàyyiwu leen ci xel mais loolu ñuy wax noonu am na ci loo xamante ni kilifa diine yi mën nañ ko faj de mën nañ wax mais bu jëf jotee ñun jeunesse bi ñoo ko war a jëf. muy wàllu góor jigéen wàllu góor jigéen yi sama gaay yi <laughs> Sénégal sama gaay yi ñun ñun ñun xam nga càggante weesuwul góor ñu dem ba di la xool naan est-ce que moom la wala du moom càggante weesuwul loolu ndaxte de ñun de gaay yi dañoo am sunu xam nga tey Macky Sall fu mu dem ci àdduna moo fa yóbbu suñu image kon jigéen Sénégal yi jàpp leen Marème Faye Sall moo yóbbu suñu image fépp barki Serigne Touba Mbacke fépp fu mu dem moo fa yóbbu suñu image tey bu ñu toogee tey ci internet bi xam nga ba góor jigéen toog naan moom lay jàppale kon gars yi ngeen xam ni Sénégal waxuma la waxuma la daanu de Sénégal pëtax na. barki sëriñ Touba Mbacke moo tax képp kuy jigéen soo nekkee jigéen joo xamante ni bëgg nga lu baax ak Sénégal ci jamono yiñ toll senegal bi ñuy wooyee dëkk ñoom sëriñ Touba yeeg Alaaji Maal ak yeneen sama gars yi nañ waxante dëgg nañ waxante dëgg jëf ji moo jëf yi moo ñaaw xam nga jigéen góor jigéen bu demee ba taxaw am fitu toog suñu présidente réew man mooy li may wax rek benn benn benn benn orma ci seen bopp amuñu ko. eh gadaaw wàcc leen dem leen wàcc leen tëjal foofu. ngeen xam ne kon situation yi day na waar ñun Sénégal ak ni ñu toll te boo seetloo lépp ñuy wax ci wàllu gëm-gëm lépp ñuy wax ci wàllu diine nag affaire yooyu yëpp booy ngir yàlla nañ bàyyi wax gi tuuti te ñu dund ko. man pour man jeunesse sénégalaise yéen yéen yéen barki Serigne Touba Mbacke yéen la ñuy ñaawal ndax ñaawal leen weesuwu naa ah? góor jigéen ñi di duggee suñu dëkk nu ñu neexee ñun. am na loo xamante ni sa waay ñun dafa mel ni ñun suñu baay yi ñoo ñu gënoon nekk ay jàmbaar ñun suñu jamono papa yi góor jigéen daal woon génn di wane boppam fu ne góor jigéen daal woon génn di wane boppam fu ne mais léegi sa waay ma de ñun góor jigéen ñi xoolal. lu leen neex la ñuy def suñu biir suñu biir dëkk boobu mais nag xam nga xam nga nag dinaa leen wax benn affaire ñun du ñu tëbee fii di dal fee mel ni ku dof mooy li ma leen wax rek xam nga gem bi affaire dafa am gem yéen du ngeen ci bàyyi xel mais ndokk yàlla ba nga xamante ni benn doomu senegal mu ngi fii di ubbi boppam di xam loolu lu tax muy am góor jigéen bu toogee am fitu toog suñu biir senegal di tudd boppam ci ni mu ko neexee dafa am lu ko waral dafa lu ko waral. sénégalais yi boo seetloo opposition bi jëm nañ leen ko sànni ci xel ba sonn mais musolu musuluñ ci bàyyi xel yéen dangeen ngeen di jàpp ne opposition bi day dem di sosol Macky Sall rek ak ak ak ak ak ñi muy àndal te du dëgg ay fen la ay fen la ñoom ñoo koy def dañoo am ay góor jigéen di dund wàllu góor jigéen barki Serigne Touba dañuy dund wàllu góor jigéen te li koy wone mooy li ma leen di wax rek ñoom seen ay affaire fàng daaj la nëbbuwul fenn fépp lay feeñ chaque jour ma leen koy wax bàyyi leen ci xel bàyyi leen ci xel bàyyi leen ci xel nga foog góor Macky Sall foofu fekk nañ ko fa pour wan la ni Macky Sall ñëpp ko yëpp kenn ñemewu kenn kenn kenn kenn faalewu ko Obama la muy màgg yëpp gis nga américain ki mu gën a fonk mooy ki gën a faale boppam ci kër àdduna américain nit bi mu gën a fonk mooy ki fonk ay racine gëm li mu doon man fa may liggéeyee sama patron daf ma mus a woo benn jour na ma am na ay nit yu fi ñëw di wax ni ni ngi leen di ni ngi ni ngay kii communiquer ñoom neexu leen quoi barki Cheikhul Xadim te ay góor jigéen lañ ma ne ko sa waay mooy li ma lay wax rek. ñun ay doomu Sénégal lañ te duñu ay dof ñun lépp ci kaw maayin lañ koy xeexee ñu la waxee di nga di ñu déglu ne ko sa waay mu ne ma waaw ma ne ko boutique bi ñaata fi ñaata nit a fi ñëw ci kër ci chaque jour mu ne ma non des milliers presque ma ne ko waaw léegi mu ne ma waaw ma ne ko yow ñaata góor jigéen ñoo la complaindre ci man di wax ni man ni ma ni ma leen di kiiyee wala dara parce que man loolu sama yaram ñemewu ko. man duma ci wax bëgguma ko te su ma ko buggul may doomu jullit dama koy wane ba mu jeex tàkk. ma ne ko yow jullit nga mu ne ma waaw ma ne ko te man jullit laa mu ne ma ma ne ko ñaar ngay tànn man loolu aw ma ci kersa mënuma ci dara danga may jël fii ba ma may liggéey wala nga bàyyi ma yaay xool lu la lu la gënal. barki Seexul Xadim ba muy wax ak man ba muy ñëw di wax ak man intérêt moo ko yëkkati woon ndax moom moo yor bu gëm pour ma jéem a wàccee sama kanam ci sama ñàkk gëm-gëm jéem a xool nu may accepter góor jigéen ñi ñuy wax man ci ni mu leen neexee donte dama koy liggéeyal mais duma ma du ma ñàkk jom ci kaw loolu man dama gëm ni image senegal Sénégal laa yor fii ma toog barki alxuraanu karim image yu Sénégal moom laa gëm ni fii laa moom laa yor sama gëm-gëm boobu nag moo ma may mu ne ma ah garaawul sax. yow gérer ko rek amul problème parce que bi muy ñëw da doon peese waa ji kan la. Obama ba muy dem Sénégal dafa peese ji Macky Sall laaj ko ci wàllu góor jigéen ndax pare ngeen pour adapté ko te nee nañ Sénégal mooy vingt cinq pays yi gën a bañ góor jigéen ci kaw suuf yow yaay seen président lenn lu moo dul sa tontu lu dul dañ ciy xalaat loolu dañ ciy xalaat képp kuy kilifa diine biir Sénégal boo jàppoon Macky Sall jamono jooju war nga ko baax parce que defaraluñu dañuy yàqal parce que moom ci boppam dafa jàpp ni dafa war a am nu mu waree yore politique am te ñun Sénégal politique ñu yombul xam nga lu tax politique ñu yombul. ñun dañ ciy boole sunu ay sëriñ dañ ciy boole sunu ay sëriñ mu nekk loo xamante ni nag lu diis gan la ci ñun du lu yomb parce que gis nga li taal Afrique yëpp bàyyiwu fi senegal mais li tax taalu Sénégal c'est parce que mooy li ma lay wax rek sunu kër kilifa diine yi ñuy bàyyi xel gars yi lu am solo la bu leen di caaxaanee bu leen di bàyyi loolu mën nañ gis loo xamante ni du yoon ñu kaas ko jooy ko ba mu metti mais sa waay buñ ko caaxaanee te genre seytaane yi nekk nii ñoo ñëw ci sa biir réew nax la ba teg yenn yi sa bopp di la gëmloo ni xoolal àdduna dafa avancé léegi sa waay léegi am na yoo xamante ni da nga war di ko jéem di ko jéem a démystifier bañ ko gëmati booy ñun nous sommes des sénégalais mais we not we not dumb ñun dofuñu ñun duñu ay con suñu xel lañ yor di xalaat sunu mbokk sénégalais yi barki sëriñ Touba Mbacke bàyyi leen Macky Sall du ko baax ci suñu réew. dañoo war a dem ba fu mu toll nii di xam lu ñu war a di dund ak Macky Sall fu mu toll nii fu mu génn sénégalais yi di ko yuuxoo ñun jeunesse bi wàllu góor jigéen yi barki sëriñ tuuba Mbacke kooku ma dégg muy wax naan moom mooy. moom lay jaral mu dem di jàppale Marème fay sàll ci wàllu politique am soo soso moom góor jigéen boobu barki Cheikhul Xadim giñ naa ko ci màggu yàlla yéen sénégalais yi bu nekkee ni da ngeen nekk jeunes yoo xamante ni yokkatoo leen yorotoo leen seen ngoru baay yorotoo seen ay jikko yu maam man barke Xaadimu Rasuul danaa ko jaayante sama bakken bës bu wàccee bés bu wàccee biir Sénégal nga day jàppale kooku fépp fu mu meeting dinañ ko tay la suñu bakken ñun jeunesse ñun jeune Sénégal yi ñun. parce que góor jigéen yéen état bi yéen bu leen neexee ngeen nekk ay góor jigéen yéen dem leen ñu tëddee leen bu baax mais nous nous sommes là comme des hommes. ay góor pire. ñun ay jabar lañ soxla defaral njaboot Seydina Muhammad yokku diine ba mu baax mais soxlawu ñuy góor jigéen suñu réew ngeen foog doomu jullit dina waxee nii gars ñu dégluwaat vidéo bi rester vigilant à faire en sorte que tout individu, quel que soit, sa croyance, qu'il ait au roi, qu'il soit femme, qu'il soit enfant, qu'il soit autre chose, soit homosexuel, qu'il soit lesbienne. Qu'il soit homosexuel. cette forme de défense de la liberté, cette forme de défense de la dignité humaine, qui a permis la Déclaration universelle des droits de l'homme, à la qui sont des milliards, qui étaient la Ligue française des droits de l'homme, et qui ont été à l'origine, tout simplement, de la rédaction de la Déclaration universelle des droits de l'homme, avec des membres qui étaient, des, des, des qui étaient des membres de la, Ligue française créer les nouvelles formes d'organisation de toutes les activités humaines, parce que c'est à partir du combat de la Ligue que la FIDH est née, qu'elle a créée, qui est sa fille, et qui aussi, dans le cadre de mouvement plus vaste, fait en sorte qu'elle est sa mère, mais qui reste aussi cette organisation vigilante qui a permis aux organisations comme Amnesty d'être créées sous cette forme de défense des droits, mais aussi à demande à d'autres que ce combat est français. Il a guidé, il nous guide. devons continuer à renforcer nos solidarités pour créer notre front civique international, un contre-pouvoir international contre aujourd'hui cette mondialisation euh, globale qui pèse tant sur nous, tant sur parce que simplement, les logiques, alors qu'elles révèlent ces logiques, ont des conséquences directes sur nos vies, des des milliers de personnes donc elle déstabilise les, existences, donc elle déstabilise les foyers, et c'est d'abord les pays les plus pauvres qui sont davantage beaucoup plus pauvres. Et le visage de la pauvreté, c'est le visage de la femme. Alors, restons unis pour ce combat. Je pense que dans ce combat-là, si nous sommes ensemble, solidaires, nous irons encore plus loin. Et je suis très heureux d'être là ce soir. En vrai, ici, le Leclerc, avec qui nous avons fait alors une mission

jëkkëru rakk bu ma doon wax benn jour na ma gis nga bu la sulaar rombee ne la boutique bi jaay sàngara fan la nekk nga ne ko non boo jàddee gauche jàdd droite ci angle bi noonu rek boutique bi foofu la ne sama jëkkëru mag bi xam ngeen lu mu wax daf ma ne bu yeboo nga bu yeboo nga ànd ak moom dem naane ji ndax naan ba muy naan ak yow yéen a yem parce que li tax moo yem li tax yéen a yem mooy li ma lay expliquer rek gis nga gis nga gis nga yàlla sunu borom la mu wax du deñ sawaay ñun yéene wuñ fi kenn safara ñun ci jaamu yàlla yi gën a xeebu xeebu xeebu xeebu ci lañ bokk mais tamit dama bëgg boo fenee d'accord ni da ngay fen boo jubalul d'accord ni jubaluloo bàyyil di woo nit ñi di leen won beneen image boo xamante ni yow nekkoo ko bàkkaar yi gën a mag ci kër àdduna yooyu ci la bokk parce que ëllëg yàllaa koy leeral te bàkkaar yam lay teg mooy àq nit da ngay jël di leen nax ci mayen yëpp danga koy fay doomu aadama day moytu àq tey kii nii mënul ñëw tey nekk nekk bokk ci gouvernement senegal di waxee nii tey ba nga xamante ni benn doomu Sénégal nekk góor jigéen du am yëg-yëg dof dara te yéen yéen la ma gën a leer yéen ban nguur ngeen mës a toog dégg senegal góor jigéen yi di lappi lappi ci biir dëkk ba mel ni ay doomi golo yéen yéen a ko gën a xam kon yéen xam ngeen ni am na lu xew ci suuf xam ngeen ni am na lu xew ci suuf te xew ci suuf dara waralu ko góor jigéen ñi yor seeni ay téléphone di ko dégloo di ko waxtaanee ci suuf di ko waxtaanee ci suuf ngeen koy dégg nguuru Macky Sall bi góor góor jigéen amu ci ngaañ ci wàllu góor jigéen la ñuy wax sama gaa yi yéen góor jigéen ngeen bëgg ñu ko raatalal noonu rek biir Sénégal foo ñu ko rek mu dugg si ñun rek nekk si ñun rek mais mooy li may wax rek dafa am ci ay doomu Sénégal yoo xamante ni loolu dina jàll ci ñoom mais barki Cheikh Ahmadou Bamba Xaadim Rasul maa ko waat yéen góor jigéen ñi yéen bu nekkee yéen yéen nga may dégg biir Sénégal élection wu bu jotee tàmbali leen ko yéen yéen ñiy génn. ngeen génn jàppale Marème Faye Sall seen yaay jooju yéen. am na doomi sénégalais yi fi nekk dinañ génn téegal seen maam ba ngeen nekk nit ku ciy góor jigéen rek préparal sama doom day sénégalais yéen ana gentleman yi ana góor ñi barki Cheikhul Xadim bu ngeen bu ngeen yoroon seen kuur di ci jaamu yàlla góor jigéen bu génn ci benn boîte ngeen damm tànkam góor jigéen bu ngeen dajal ci mbedd mi escanté ko barki Seexul Xadim léegi mu commencé làquwaat mais léegi làqootuñu dañuy wane seen bopp carrément bañ leen di waaj tër tëral loi suñu biir réew pour ñu d'accord leen man mënuma gis man bu ñu ma laajee sénégalais bi gën a bon ci Sénégal barki Seexul Xadim moo leen Macky Sall la yow Macky Sall da nga mel ni ku bañ diine mais ku ñuy jiiñ farmason parce que man Balla du ma wax lu ma wóorul man Macky sama noole laa ko def mooy li ma leen di wax dafa jàngi woon teg duul ay duulam ba jox ko nguur ñun dofuñu dof boobu intellectuel bi xeetu intellectuel bi ñaanuñu yàlla doon ko ay homme d'état boo ko doon wax démb tey bu ñu waxee ay ay ay yeneen ay yeneen tur da ngay dégg ay tur mais Macky Sall yow jàppal ni sa tur mooy gën a yées boo fi jógee tey yow sa sa tur tur pour président yi des Sénégal yow bokkoo yaa ciy gën a yéesle parce que du sa jëf sa wax yow niroog sax doomu Sénégal yow ñàkk ngay nirool ñàkk ngeen jéggal ma nag mais billaahi joxewul doomu Sénégal. parce que lii toroxal sénégalais yi rek ngay def di ko wax góor jigéen ak na ko yàlla sibee bañ ko yàlla may baat fépp ci biir Sénégal yow ak ñi ngay àndal ngeen di mbubboo chaque jour di fen mais tey góor jigéen yi weer nañ leen toog di taar sa turu jabar mais tey bu nekkoon tey manque de respect rek bi ñuy wax manque de respect bi ñuy wax man la saaga man man nga saaga ma moo gën nga jël góor jigéen di tuddoo sama xarit la nga saaga ma ay ndey nga wol ma Assane Diouf mu daggal ma ay nday ba mu fees del del del del moo ma gënal góor jigéen di ba tuddoo sama tur Assane bi mu la jaral nga dem fekk ko biir Amérique indi ko ndax ay saaga yi muy saaga sa nday te barki Cheikhul Xadim giñ naa ko ci màggu yàlla ku dul naa féq rek xam ni li yow lu la Assane wax rek mérité nga ko lu mu la saaga ndey mérité nga ko man mii su ma toogee di xool li ngay li ngay def sénégalais yi man barke sëriñ Touba Mbacke sama yaay laa xamul nu may def rek mais bu ma sañoon saa bu ma yeewoo di la ko daggal di la ko daggal comme sénégalais comme Assane ak ñeneen ak ñeneen ni ñuy def di la ko def ba mu gën a bon fu mu gën a ñaawee. mu jaral la ngay jël ay ustaas di leen tëj biir kaso Karim léegi nee na moom Assane li mu doon saaga ba li mu doon saaga Assane li mu doon saaga Macky Sall léegi mu ngi door a comprendre le pourquoi parce que dañu fekk Imam Ndaw biir kaso téye ko di ko toroxal Imam Ndaw même bu nekkee ni moom jaadis la. doxagu ko fi gisaguñ ko fi fu mu ko defee kon dañ ko koy jiñ rek ci jiñ ko lañ tollu ñu koy toroxal biir kaso. gars yi di ma wax war na am nu ñuy waxee ak Macky Sall war a am nu ñuy xool ay nawleem yi mu séqal langue politik bi sax respecté wu leen. bi gën a màgg nag man gën ma ñor Sénégal muy sunu kilifa diine yi. nga xamante ni li seen maam wax ci àdduna yëpp ëmb na Sénégalais yëpp jébbal leen àjjana. Alaaji Malick teg ko ay xadara fu ne ci biir Sénégal doomam toog fii di wax sa gouverneur toroxal ko gars yi di la woo naan la ay ni ngay waxee ci président lii da nga war a xool léeg laa mais senegale lu tax ñu bëgg yëfu naa féq te président bi ngeen di wax bunt bu baax sax defalu leen ko seen biir réew ay lañuy la ñuy yor dañuy dugg suñu biir réew di rey suñu ay doom di sàcc ay xale di leen rey fii Amérique am na loo xamante ni bu dalee si doomu réew mi président bi day génn taxaw ñu arrêté lépp mu wax ni lii moo ma naqadi waa ja koy def sax day tiit xam ni ñu koy wër di ko recherché fu ne. non mais ñun lan moo nu dal ñun fan la nu seytaane tënk mais ku war daa wareen rek njiñ ñu wax dañ la koo jiiñ barki Serigne Touba dañ doon bañ naan ay ab Ablaye wàdd lii dafay kii waxal ko yekkal ko lu nekk te yàllaa ngi leen di weer chaque instant di wane benn par benn ci seen jëf yu ñaaw te li ci gën a bon mooy ñu ngi gis seen ay jëf yu ñaaw te mënoo leen arrêté. ce qui grave ñun sénégalais yi nag ñu war a taxaw xam sunu bopp xool suñu bopp gars yi ñu war a lijjanti suñu bopp xool fu ñu jëm ëllëg man su ma nee yëguma dara rek waxuma dëgg man damay yéeg métti sama biir xol ci biir Sénégal sama xol dafay metti dëgg la sama yaay a ngi dund maa ngi ko bàyyi Sénégal man fu ma xam lu koy naqari duma ko fekkee mais ñaata Sénégalais ñoo bëgg seen yaay ni man te possibilité ñoom bi ñu am pour war a teral seen ay mbokk wala sama moroomu góor yi yor njaboot. possibilité bi ñu am di teral toppatoo ay jigéen di leen teral takk seeni jabar di leen toppatoo man du ma ñaanal man sénégalais yooyu ñu am loolu man du ma yéene sénégalais yooyu ñu am loolu ñu gën a bon naan da ngeen di génn bitim réew xool li réalité àdduna jàng ko ba mokkal ko réew jàmbur yi teg leen si yoon jox leen lu leen seen réew joxul ngeen bëgg di naxasal seeni ay doomu réew di leen nax ci ay wax ci ay fen nax rek nax rek nax rek ba jàll pour jàll fan booy dañ la naan arrête ñun mag yi dañ la naan arrête te gis nga sama doomu sénégalais yi doomu gor mi doomu garmi yi doomu gor yi ñi nga xamante ni dañ seen ay maam dañ doon xeex pour taxawal réew démb tey deret booboo ngi daw ba léegi doomu sénégalais yi moo tax yéen sénégalais yi dama bëgg ngeen gëm seen bopp fonk seen bopp ñu fas yéene fi jëlee président bi parce que dafa war a jóge dafa war a jóge te li tax mu war fi jóge xam ngeen ko kii six rek la fi am ñun ñuy bëgg a dee foo wax ci Sénégal ñu ne la day metti amuñu dara lu baax lu nit ñi war a mën a lekk di ko dundee gaa yi tukki nag dem extérieur bu ngeen fa nekkul woon Sénégal dafay ñaaw ñu ci bëri parce que yéen da ngeen di am jom di jàpp ci seen réew yi te imaginer woon ngeen yéen ngeen di téye seen ay loxo te yéen yéen a ma gën a xam ku waxul dëgg rek wax fen sa boo yoree sa bopp ci bitim réew jàppale seen waa kër Sénégal yow xam nga ni pepp da doog li ngay dese sa poos yi da nga koy dëbb daaxe te yow yaay daj ay coono. yow yaay daj ay coono yow la métti bi yëpp di dal kon une fois de plus booy sénégalais yi sama gars yi sama mbokk sénégalais yi ñee ma tax di woote. gis nga man fii nii may dugg ci internet bi ku ngeen dégg muy wax ni bëgg na di seetaan Balla rek nay doon gor parce que man gor yi laa invité fii invité wu ma fi ñi may toog di saaga di wax ay yoo xamante ni yóbbuwuñ fenn man dama dépassé idée ak esprit wu toog fii di dagalante ak ay saaga ndey wala ñu may saaga ndey may tontu ku saaga ku ma saaga ndey ku ne man maa xam kii sama ndey xam sama bopp samay mbokk ngi may déglu fii ci internet bi xanaa booy fen ba sa ay mbokk teew nga war a mën a rus kon li may wax man dama ko xam dama ko ñeme ñun ay góor yàlla lañ am fulla am fit ñeme liggéey di daw ñàkk jom foo ñu sëgal ci gaalu xaj rek doo ñu fa fekk ñu fay lekk ku ñu gën ku ne loolu lañ la gënee loolu ñu ñu yaree nag du ñu bàyyi ba ñëw fii ci réew yi nii di ñàkk jom di ko jaay balaa may dee ñu leen di tuddee les intellectuels sa waay Bocar Samba Dièye ñëpp leer na ni ci ñàkkam la liggéey ba dee tekki na mu tekkee senegal intellectuel duul di paccal di forox di fen rek ak sàcc man moo tax yombul may am ay genre yooyu di ma impressionné gars yi liñ leen di jaay yëpp mën ngeen ko yàlla mooy dogal yu bari mooy jël doomu aadama di ko placé fu nekk ci àdduna pour mu mun fa wane boppam gars yi di duul nag di leen jéem a suul parce que génn goo leen xamagoo leen lu bari mais du ngeen ay dof fu ñu leen teg ci àdduna ngeen liggéey fa. kon affaire yi jarul nelaw sénégalais yi ay jàmbaar ngeen bu leen nit nelaw loo ci ay kàttam ki fenam wan leen ni affaire dafa war a nooy ngeen war a évoluer bu leen gëm loolu affaire yi dafa mu metti pour nga mën a évoluer pour mën a tekki pour nit ñi xam fi nga jëm am loo bëgg ku amul loo bëgg rek doo gor nit day bëgg lu baax nit day bañ koo xas ñooñu di nekk di ànd ak Macky Sall ñu leen di jox ay big ñuy signé barke Serigne Touba Mbacke ku signé ren déwén doo fa jóge parce que kenn du def lu ñaaw wala lu bon di avancé amul fenn kon lu ñu war a jar bàyyi xel la mais senegal yi tamit ñay nekk foofu ci biir dëkk ba ñii di leen loo ñi di leen fay ay junneeg yooyu. booy sénégalais yéen bu ngeen ci mënee jug jug leen ci bu ngeen gisee ku yor carnet di def loo xamante ni arrangé wu leen yéen ñeen ko war a njëkk xeex ñaar ñetti nit bu ngeen ci xeexoon nag moom rek ñu commencé moytu Macky Sall li mu ñu def nii APR warul meeting senegal waa du dem France di ko fa meeting de France benn coup fil nag laay jam ren jóob rek gaa yëpp woote as ji bi jaañ man moom duma ko sax présenté kooku deret bi benn la liy tàng fii rek mooy tàng foofu macha allah xalifa Italie ñun ñëpp ay doomi bañkat lañ barki Serigne Touba Mbacke duñu bàyyi dara fu ngeen dugg rek doo xoolal barke Serigne Touba doomu sénégalais ngi fa. am jom ak du ñu maye lenn fii moom bu ngeen fi ñëwee seen xalangu fii la nekk moom. fenn waratuñ fa meeting fenn waruñu leen may lenn. yéen nag góor jigéen ñi moom yéen yeboo ngeen pare yéen góor jigéenu Sénégal yi yéen pare leen. seen musiku caga yooyu ak seen góor jigéen yooyu ngeen di pare dem leen kër nday Marème Faye Sall wala kër baayam wala kër baayu Macky sàll foofu ngeen pare ko fa mais jàpp leen du tas biir Sénégal. yéeg ci nguur gi rek góor góor jigéen yëpp mel ni ay kaña yu génn ci pax tasaaroo ci koñ bi ñëw bëgg tasaaroo suñu Sénégal loolu du am de barki sëriñ Touba Mbacke du am ñun duñu toog loolu di ko seetaan ndax ñun ay doomu jullit lañ. bu ngeen buggee gis ay góor jigéen yi ñuy tër di rend biir Sénégal lu fa musul xew bisimilah comme dangeen di meeting ñëw leen meeting si. police sénégalaise ngir yàlla ak bi jëmi sëriñ Touba une fois de plus seen bon gi ngeen bon ngeen war a wàññi tuuti. yéen policiers sénégalais yi da ngeen a bon bàyyi leen doomu sénégalais yi bu ñu wàccee aéroport sax bu ñu wàccee aéroport ñëw ngeen xool xale yi dañoo sangu clean nekk ay gentleman lekk ba suur liggéey ba tas yor seen ay teraanga di wàcc si bu aéroport bi sax ngeen leen di xoolee ay bët ab soxor dafa nekk ci yéen rek ni Macky Sall waree fasu soxor fas yéene ko dawal fu nekk ci àdduna bi yéen noonu la mel ci yéen. yéen policiers yi jëm leen raxas seen xol yi ngeen jéem a xool seen bopp xool seen comportement li leen naqadi bi ngeen demee ba jànguloo leen xamoo leen gat ngeen dem dugg ci armée bi ñu taxañ taxañee leen def leen ay policiers nokk leen ci kaw tali bi du suñu erreur. loolu ngeen bëggoon moom ngeen am te moom ngeen mérité bu leen tegee ci kaw tali bi ngeen am seen xol gu bon encaissé woo leen lu bari. bëgg ñibbi kër ga xamoo lu ngeen fay yóbbu gis population bi war leen di dóor fekk ñaari ay doomu gor di dawal seen scooter ci mbedd bi ngeen mbëkk kenn ki ba mu tëdd ci kaw suuf am ñaari fracture kenn ki dee kenn ki dee ngeen nekk ci kaw leen neex te amul benn yoon bu koy topp walla dara kenn du ko topp ci dara parce que bakkan amul valeur bii Sénégal bakken amul valeur biir Sénégal dañ waxante dëgg doomu nday kan mooy ñaan yàlla dem dund ci réew moomu réew moo xamante nit day dox ci mbedd mi ray la ay mbokkam topp ci justice bi di xool di daw fu ne ci kër àdduna ki ñu war a plainte sax xamuñu ko te mu yoroon oto di dawal mbëkk ñaari doomu sénégalais te yéen ndaysaan ñun bu ñu duggee ci internet bi di ko kaas ngeen war a jug jàppale ñu yéen doomi sénégalais lan ngeen di wax. parfois ngay dégg ñuy wax ci di sànni yenn kàddu yeeg parce que yaay jarul sa doom dalul sa doom da ngay bàyyi ba mu dal sa doom nga door a génn di kaas fekk c'est trop tard nga xeex dañ koy xeex te ba mu jotee doo bàyyi bañ ne la xàng kurpeñ ba nga jaaxaan di di di lijjanti ku ma dóor xeex dañ koy xeex te ba mu jotee. moo tax yéen tamit yéen waa famille boobu dafa am loo xamante ni dafa war a tàmbalee ci yéen man maa la ko wax. bu ñu reyee seen doom loi waxu ci dara mënu ci lenn ngeen wuti ji ku rey doomam ku doomu kooku du ngeen ci am benn àq. comme seen réew amul loi nit da lay tooñ ba pare déggoo ma jàkkaarloog yow nii te mënoo ci dara jógee ci voie bii dem ci voie bii rey nit te kenn du wax. fii boo fekkee clochard ci mbedd bi dawal ba yëg ci kawam dootoo ko ñaaral mais bakkan amul njëriñ senegal bakkan du dara biir senegal bi ci gën a ñaaw ñu jël doomi jàmbur ji yóbbu ko ci biir hôpital bi hôpital bu ne di ko sànni hôpital bu ne di ko rejeté ba mu ba ñu ba mu gàddu bakkanam chaque jour ñu toll ci lan ci ban senegal lañ nekk seen soxor si wàññi leen ko bu fas doomu senegal yi wàccee aéroport sax di nice di clean di naay xale yi baax loolu jigéen ñi nice ñëpp di dox seen xol yi di bon buñ leen joxee passeport yi sax ngeen taxaw di am lu luñ ciy mer soxor da leen di yóbbu ba ngeen taxaw naan ko kii du yow ak doo dem de. esprit connard bi ngeen yor barbar yi ngeen nekk. policiers sénégalais yi bu nous emmerdee seen liif yi denc leen ko jéem a xool nu ngeen amee teggin am kàllaama gu neex ci wax ak nit ñi. réew yu développé yi sax dóoratuñu nit ñi policiers yiy nii lu baax di yor lu baax boole wun ci bàkkaar ci seen kaw yen da ngeen di ñàkk ba pare di ci boole bàkkaar seen kaw. ku bëgg gis nitu safara rek yéen tamit nañ leen ci boole yéen yéen yéen yéen policiers yooyu. yaakaar ni dañ leen jox tenue bi rek ngeen mel ni dangeen yor ay mala di leen domte ci biir àll bi bu ngeen bëggee lu ngeen domte dem leen seen famille yi bu ngeen juree ay doom ngeen domte leen vous nous emmerdez vous les policiers te encore ngeen di sangu yéen a gën a salte fii merci Khalifa dee leen sangu seen kolu chemise yi nit ku ko gis di bëgg a wàccu parce que benn tenue ngeen di jël di ko bomb ay année yéen ñëpp ñu yor suñu image dëkk ci ngeen bokk am na benn policier bu doon taxaw ci circulation bi foofu senegal mais kooku ku ko gis rek naw sénégalais yi mais yéen ku leen gis rek xeeb sénégalais yi ndax seen salte li kii di wax dëgg la Yolande Diène li ngay wax dëgg la ils sont pires que des animaux ay yëfu con rek ay di mbéj jigéen seen bon gi ngeen war a wàññi tuuti ñun teguñu leen naqar gi nag bi leen di rey ci mbedd mi ñun teguñu leen ko yéen a opté loolu nit ki booy liggéey dangay jël liggéey boo bëgg mais du situation jox njaboot gi lu ñu lekk rek moo ma fi bàyyi moo tax ma ñëw taxaw ci mbedd mi rek nag bi dina bëgg rey rek nga bëgg nga bëgg rey nga bëgg ko xëpp nga bëgg ko xëpp sénégalais yi du noonu du noonu may leen ñu suñu jàmm suñu réew mi ñuy dund foo seen policier di ko moytu ndax bu la xat gi reyul rek déggoo ma jikko jàng lay rey ndax soxoram vous nous emmerdez may leen ñu jàmm te du ngeen gat yóbbuloo leen senegal fenn ñi nga xamante ni man looloo ma gën a naqadi ñi jekk ci terroriser terroriser sénégalais yi ñoo ko dul def ñi jekk ci di sonal sénégalais yi ñoo ko dul def du ngeen gat te li ma ci gën a naqadi fu ngeen génn ci mbedd mi fu ngeen génn ci mbedd mi booy bi gën a ndaw bu ngeen ko buñ ko bàyyi woon ak yéen ak seen service militaire dañu leen jàngal def leen yëpp mu noq leen parce que suuroo leen sax lekk ku baax sax amoo leen ko nattu bi nag du ñun ñun teguñu leen ko da ngeen di xool seen président boobu nga xamante ni saa bu yeewoo bu ngeen génnee ci mbedd bi ngeen noq population bi te mënu leen jox sax lu ngeen lekk ak tenue yu baax yu ngeen sol ñun defuñu leen dara dara defuñu leen ko. dara defuñu leen ko. sama gars yéen ñi ñëpp maa ngi leen di bëggee yéen ñëpp man lii moom mooy dundal lii fii ba Macky Sall di di wàcc suñu réew man lii moom mooy dundal doomi gor yi may gis ñuy dugg sama vidéo yi di ci wax di ci partage di ci aimer man yéen yéen a dundal yéen parce que man xam naa ni bu dee benn gor sax des na senegal te yéen la te yéen la yéen rek ma fi bàyyi su ma doon dugg di fekk fii cinq yu ma waxtaanal sama temps mun naa ko fi passé te ñaata heure laa def tey mu ma ko sax sentiruma ko billaahi sentiruma ko ndax dama xam ne am na senegal yu des senegal nekk ay gor ba léegi nekk ci àdduna bi fépp bëgg dégg ay kàddu gor bëgg dégg lu baax moo tax man saa bu ma toogee fii di waxtaan ak yéen rek bu ngeen di envoyé kër yi wax ji nice ngeen koy like ñii rek lay deme lu leen ci neex rek lépp lu ci rafet rek jàpp leen ni yàlla sunu borom a ko dogal lu ci tilim rek jàpp leen ni man la. te man dama di nit kese te nit matul mais jàppaleen ni moom mag yéen ba keroog Macky Sall dañu abal sunu réew te ngir yàlla ak yonent bi gars yi dama leen ko ñaan yii ma leen di wax jaleen ci jàpp xel te ngeen koy moytu nañu moytu ñu ñuy tàqaleeg suñu ay sëriñ nañu moytu loolu parce que suñu base population li ko yor loolu ci lu bokk ci la bokk lu taal yenn réew yi te taalul Sénégal la ñooñ ci lañu bokk loolu mën a fonk fonk leen loolu mën a ormal ormal leen waxtaan bi waruñu ko wax rek tënk ko fii dañ ko war a di ko jàllale sénégalais bu nekk di ci yëg boppam sénégalais bu ci déglu nag nay xam ni goroy wax ak moom ku bëgg Sénégal mooy wax ak moom ku bañ lu ñaaw ci daru réewam mooy wax ak moom loolu rek moo ñu fi bàyyi. mais yeneen nit ñi affaire yu ñaaw ya ñuy di ko wax yëpp man su may lire commentaire du gis loolu parce que dama gëm ni sax sa ennemi mun na wax dara nga jàng ci saaga yeeg xas yi yëngalu ma ndax fi ma teg sama bët la fi ma teg sama bët la fi ma teg sama bët la kon gars yi ma def tàggatoo bi rek ñuy bëggee bu wér xam nga ñu bañ di forcer mbir yi rek sawaay ni ko Mbaye Dieye di waxee fii ak nongoloo rek suñu président mënul ñu dem rek bàyyi ñu bu mu ñu jéem a dara waaw mooy mun a maane si sa maa ngi lay bëggee bu wér a wér a wér a wér a wér kontaan ci yow lool lool lool lool fépp foo munti nekk rek sa waay sa taxawaay gis nañ ko bu baax loo mën a jàpp jàpp ko Sénégal yëpp di xam lii parce que gis naa ni ku Sénégal ñor OSR man fépp fu ñuy xeexee pour Sénégal rek man fa bokk fépp fu ñuy xeexee pour Sénégal man Balla man fa laa bokk man bokkuma Amérique man Sénégal laa bokk man duma américain man sénégalais laa kon yéen ñi ñëpp ku ci nekk rek jàppal ni su dee xol bu sedd yéen seddal ngeen ko sama xol ma ma leen di bégal yéen ñëpp yéen ñëpp di leen bégee Touré Gueye yéen ñëpp maa leen di bégee Mami Diop fekk kase caam maa ngi lay bëggee sama sister sama sister bu yàgg maa ngi lay bëggee bu wér sister Sénégal rek a leen ñor yéen ñi ñëpp xam naa ni sama jëmm ji bàyyiwu leen fi mais lu ñor Sénégal rek moo leen fi bàyyi moo tax man dimanche bu ne lu ma mën a xeex di ko jooy dama leen koy indil di ko fi wax yaa Khady Diop ñu lay bëggee bu wér. gars yi maa leen di ziar bu wér a wér naa trop ñu dem tàggatoo bi rek. tey nag moom tey dama am xew nag tey sama jabar lay ngénte xam nga sànq ba léegi maa fii toog di wax rek di ngeen ñaanal sama doom dama am doom bu ñuy wax Mouhamed Mouham di wax doom bu ñuy wax sëriñ Fallou moom mooy gan gu bees gi nag. sànq ba léegi maa ngi fii rek bàyyi gan yi ci biir di wax rek gaay yi ndax Sénégal rek ñu leen di ziar di leen bëggee bu wér jam tàggatoo bi rek sama gars yi ngeen sànni ñu ñaan rek bu baax a baax. ngeen sànni ñaan sama soxna si samit yaay sañ Fallou sànni leen ko ñaan yéen ñëpp sama soxna si taaru si jaajëf ziaral ñëpp Sénégal rek a ñu ñor jaajëf gars ñu leen di bëggee bu wér rek gars yi xam naa bu yàlla defee jàmm rek mooy ni ma leen ko waxee rek incha allah dimanche bu nekk rek ni ngeen ko bëggee rek lañ koy defee kontaan nañ trop sama gars yi jaajëf kontaan nañ trop. gars yi nekk fi yëpp di seetaan bàyyi seen lépp yéen ñëpp maa ngi leen di ñaanal yàlla yàlla may gain gudd fan ak wér xam nga chaque dimanche ñu toog di ko bëggee di def li ñuy dundal mooy li ñor suñu réew ñu koy kaas xam nga yàlla dimbali ñu si bu baax ndax li ñu bëgg senegal Sénégal bu gën lañ bëgg Sénégal bu baax loolu rek moo ñu ñor bu ñu nit di bañ ci kaw loolu rek bisimilah ayca. ku ñuy bëgg tamit jàpp nañ ci kaw loolu nga ñuy bëggee ndax ñun Sénégal rek moo ñu ñor billaahi leneen ñoruñu ñu ngi leen di bëggee bu wér gaay kontaan nañu loolu kontaan nañu looluwaay xam nga ma bàyyi gaa yi rek ngeen déglu tuuti rek ci son yi rek sénégalais yi am jom yi sénégalais yi lu bëgg lu baax ndeysaan Youssou Ndour mii tamit ndeysaan kii defal na Sénégal lu nekk yóbbu na turu Sénégal fu ne mais xam nga àdduna moom cat dalay topp fu ne cat cat cat bi fii la ko toppee ci Macky Sall bu leen ko def noonu bu leen ko def dara comprendre leen ko rek ku bëgg Sénégal la mais dafa juum rek ki mu jàpp def ni mooy ku baax du ku baax Macky Sall bi mu yaakaar ni mooy ku baax du ku baax moo tax seetlu ngeen ko déggatoo leen ko ci lu bari mais ku bëgg Sénégal la ku Sénégal ñor la waaw jaajëfu tey sama gars yi waa di leen bëggee bu wér jaañ Diagne Diagne Naar sama waa ji maa ngi lay bëggee bu wér a wér ren sama sister di bëggee bu tey moom journée bi bëgg fàlloo ko moomoon bëgg fàllu tey yaa moom bii ñu ngi lay bëggee bu wér si sa sa taxawaay rafet na. jaajëfatee grand xorom xaw ma foo nekk xaw ma yaa ngi déglu wala ñu lay ziar bu wér di la bëggee di la ñaanal yàlla. Ousmane Tunkara sunu grand tamit tey bëggoon nañ la gis tamit. xam nga mais mooy loolu xam naa beneen yoon rek incha allah jaajëf waay sama gars yi ñu leen di bëggee bu wér kontaan trop seen teewaay yal na leen yàlla defal jàmm sama sister maa la lay bëggee bu wér Mbeg maa ngi lay bëggee bu wér sister Khalifa sama rak depuis Italie Njaañar maa ngi lay ziar bu wér as jibi Diagne sama frère kooku moom benn la quoi waaw gaynde bi gaynde bi Njaañar maa ngi lay bëggee bu wér di ziar sama famille yëpp bëggee waa famille Njaañ yëpp jaajëf waay ngi bëggee bu jaajëf waay Abdou Sakho Baye Fall Sakho Baye Fall mu ngi lay bëggee wér maam Seera Fall ñoom ñëpp ci xeex bi lañ bokk sama gaay yi gaay ñu ngi ci xeex bi man la ñuy gis may toog ni di rek mais gaay yi nekk ci ginnaaw ñoo ëpp waaw Sénégal lii lañ xam. tukulóor jaamu séeréer séeréer jaamu tukulóor ñëpp bokk ndey bokk baay foo dem ci àdduna xeet yaa ngi rayante mais ñu suñu ay xeet du ñu rayante dañuy foo ñun lii lañ bëgg ñun lii lañ xam tukulóor ñëw fi barki démb Ndiaye naan ñu xoolal sa waay déedéet du noonu léegi tukulóor yi rek ñoo may fotel tukulóor rek nekkul Sénégal gàtt xel nag moo tax muy waxee noonu waaw. vive le Sénégal sama gars yi ñun Sénégal rek moo ñu ñor nous sommes des Sénégal nous sommes des Sénégalais dignes fils dignes fils du Sénégal. gars yi nañu ko bëggee rek lépp si kaw jàmm rek Sénégal rek a ñu ñor waaw na neex rek gars yi yokk kër yi si kaw na lépp neex si kaw jàmm rek ñun kenn duñu xoj kenn duñu xoxotal déedéet jàmm rek lañ may. que ñun Sénégal jàmm lañ xam dañ ci yor lu bëri ba di ko séddale si yeneen réew yi. vive le Sénégal sama gars amul bàyyi mukk dañuy xeex ba dee. yee waaw waaw. moomul loo ko bul doose ci loo moomul. waaw waaw. bu leen sàcc ci loo moomul sa jaay doole ci loo moomul. déedéet da ñàng di liggéey. di ay coono boo amee rek mu neex lu la neex nga ciy xam ne yaa moom yaa ko liggéey waaw waaw. jaajëfatee Sénégal Sénégal Sénégal Sénégal Sénégal Sénégal Sénégal bu ci kenn xeeb sa dara lu waay mën rek defal. ñu xeex ba jëlee fi lii Sénégal rek moo ñoo gaay moom mu loko tàmm lu lew bàyyi leen di sàcc xaalisu Sénégal di ci taar di ci wane dawal ay kàr kàr rangale fekk li nga def yëpp yaa ko sàcc dana ay kër Amérique bu dëkk Amérique sax dina fi def plus de vingt ans pour jënd kër ngeen di fen sénégalais yi bàyyi leen loolu fii sénégalais yi nelawatuñu waaw xeex rek ba jot suñu réew vive le Sénégal jaajëfatee